jërë ngeen jëf mbokk yi maa ngi fi ak yi nga xamante ni mooy Mass Booga su ma nee Mass Booga nag Mass Booga bu géejawaay laay wax ndax lépp loo xamante ni nii loxoy géejawaay ak te moom Mass danga ko ciy gis Mass nuy naa la. fay naa leen bu baax a baax di leen wax marxaban dal leen ak jàmm ci géejawaay di leen siyaar wér-wér jox leen seen wàcc wàccuwaay. Euh, ku la xam xam la ak Balla Gaye ku la xam xam la ak géejawaay mais démb ñu gis ngeen doon bëreeg Bombardier combat bi nekk combat revanche naka ngeen ko waajalee. waaw ci lépp rek Balla waaj na ci lépp waaj na ci lépp daa am lu suñu borom wax mhm. ah, ah, bisub ndam du bisub victoire bisub bisub défaite du bisub victoire mhm. nit ki nag booy dem doone yàlla na daanu da nga naan yàlla nga daan te say supporter mit dan naan yàlla nga daan mais làmb joo gis rek ak na mu koy bëree te làmb joo gis ak na muy demee làmb ji ko xool démb làmb ji xam ni Balla Gaye jàmbaar la ak Bombardier eh, niveau bi mu toll ak état bi mu yor ak poids bi mu yor Balla koy affronté ko ba ñemee dem di ko mboot ak di ko caxabal xam nga kooku jàmbaar la Balla Gaye bu demoon tey jii bi bi avertir yi nekkee 4-4 boo ko neexoon day taxaw rek di lewaatoo ba làmb ji jeex duñ jox kenn victoire waaye jomam ak xarañ gum xarañ a tax mu engagé ba làmb ji demee nii ñu jël victoire jox Bombardier yal na ko jik Balla gay na gën a góorgóorlu na gën a jàppaat na gën a liggéeyaat na gën a fonkwaat banlieue bi te xam ne ñun banlieue la ñu am loolu lañ gis ci làmb ji dun na liggéeyut liggéey na jël na xaalisam fay na sëriñ def na li ko war lépp entraînement na kon nag bu dara dikkee rek dañ koo war a sant yàlla ndax Balla Gaye da daan jàpp ay doomi jàmbur di leen dóor ñuy daanu ñuy yuuxoo di jibile ñun ñi kon tey bu ñu demee ñu jox décision arbitre nan sant yàlla de préparer waat leneen loolu de laa ci gis euh, dañoo gis démb bés bi nekk bés bu mag mais gis ñu ci waa géejuwaay gis ñu ci mbëru géej yi lan moo waral loolu. non boo xoolee ipon presse bi ay la de Guiers ñëpp a ñëw mbëru géejawaay yëpp a ñëw bisub lamb ji démb laa waaw bisub lamb ji boo xoolee mbari ñëw nan xanaa kenn ki ci ne da léegi CNG bi liñ tëral quinze personnes ngay dugal Balla Gaye ay rakkam rek mat nan quinze Balla Gaye démb bu ñu xoolee ci mukaayam lu ci dugg ëpp na vingt personnes waaw déedéet ëpp bunul vingt personnes quinze personnes lañ leen may mais yooyu ñu leen may quinze personnes ngay mën a dugal te quinze personnes man mii sax Balla Gaye ba mu daree bëre ba tey musuma teg sama tànk làmbam musuma dem làmb barki Cheikh Sat bu musuma dem làmb sama loolu non dara sama kër rek laay toog seetaan ko fa làmbam yëpp Balla bi muy mbappat fii sax du ma dem mbappatam waxontuma laa làmb ji mag bi mais tey bu ñëpp defoon ni man amaana di toog di ñaan di dugg ci ruq yi di wër di ut ku ne ñaanal mais kenn ku ci ne da ngay bëgg ni man maa sës si Balla Gaye maa ànd ak Balla Gaye waaye boo xoolee 15 personnes yooyu ñu ko may 15 personnes yooyu tey jii ñu bari ñu dar Balla Gaye dem duñ ay nitu làmb waaw loolu bëgg naa cee ñëw parce que ñu ci bari ne nañ Balla Gaye dafay wàcc mbër yi topp ñi nga xamante ni tey bu conseil jotee ci làmb wala moment bi ñu mitaawee ay mbërëwa ñëw wax ak moom wala ku ci mel ni Lamine wax ak moom mais Aziz lañ gis ñu dugg ci géew bi ay Balla Gaye numéro 2 ay Baye Ndiaye lañ gis si biir bi ñu ne est-ce que Balla Gaye xawul bedd ñenn ci mbër yi wala bokk yemalawuloo leen fa nga xamante ni fa la ñu waroon a yem. déedéet Balla Gaye du beddi mbër Balla Gaye mbër ko jox li mu am te Balla Gaye géejawee ko jox li mu am ak ñi muy àndal beddiwu leen xanaa da di mbir amee buuxante ñu bari na noo am jikko mbir bu amee amaana buuxante wala mu am loo xam ne si ah, kenn ku ci ne bëgg na fes dañuy bàyyi ñi bëgg a fes dem ñi bëggul fes toog loolu la rek. Balla Gaye kenn ku ci ne man mii maa ko gën a bëgg a jege di ko sotti saafara waaye da loolu du sama liggéey moo tax dañ koy bàyyi ña nga xam ne mooy seen liggéey ñu di ko def Aziz ak Baye seen normal ñuy wàcc si Balla gay pour wax ak moom di ko conseil ndax Aziz luy defaral géejawaay rek waxuma la Balla Gaye mais luy defar géejawaay rek lay Baye luy defar géejawaay rek lay Baboy bu tawee dugg ci ci ba Balla gay bëgg ko jàpp ko am nañ fi ay ndam am fi ay défaite te am am lañu àndal kon yaakaar naa ne ñoom defar rek a leen tax a jóg amaana nag am na mag ñoo xam ne si war na noo sol seen dàll war na noo sol seen dàll di ñëw ci làmbi Balla gay di wax nii la ak nee la waaye lamb nag toujours nii la dangay ngay gagné wala nga perte tey bu gagné woon ñu ne ñu ko dar ñoo ko jàppale waaye bu perte ñu ne ñu ko dar ñoo ko jàppale lamba tëddee noonu mais lépp nag dañ koy sant yàlla nag ci li ci bi tey ñaan lamb jum amaat yal na ci yàlla def ndam. mais ñu ci bàyyi dañ ne premier chute ba jot am jël la ci am mais arbitre bi dafa mel ni dañ koo gëlëmal wala boog dafa seetaan. non première site ba maa ngi dégg ci nit ñi wax. gisaguloo ko seet man dégg avant laam avant Balla Gaye di bëree barki seet sat bi su meeku naa ba tëdd. da tiit man lambi Balla Gaye du ci tiit Balla Gaye ba muy xale ba léegi ma koy may juróom di ànd moom du ma demee bay tiit ci lambi Balla Gaye xanaa war naa xoolaat sam bopp. lamb la rek day daan walla ñu daan ko rek day daan rek walla ñu daan ko mais da buñ ko daanee dinañ reer bu daanee dinañ reer lamb la rek. Balla Gaye amaana nañ am na ñoo xam ne sonn noonu lool suy bëre dañuy sonn bu daanoo dañuy sonn waaye ñun ñi ko sës lool miin ko xam ko lool wax dëgg fa yàlla buy bëree war na noo am maîtrise su dal loolu rek a tax ma dem sangu ba seet daal di dem tëddi barki seet sat bu du ma fawee seet sat barki yonent bi avant arbitre bi soufflé avant muy sëgg bi ma wootee ñu ne sëggagul laa sumee ko julligee dem tëddi euh, ñu ci bari bi Boy Niang bëree ba noppi ku ci mel ni Aziz Ndiaye ba ci moom Balla Gaye Aziz Ndiaye ci ay kàddoom ne Euh, gannaaw boo ñaar dafa jugee ci ñaari defet ñun du ñu bëree mu jugee ci ñaari defet mhm. balaa ñuy bëree moom faaw mu dem prouver waat ba noppi doog ñoo ñëw bëree ñu gis Balla Gaye ni mu bëree démb ñu ci bari ba ci supporter mi xaw nañ ko ŋàññi mhm. est-ce que war na bëree fi mu toll nii ak ki nga xam te ne mooy Boy Niang wala la la la Aziz waxoon dañ cay dellu too xaar ba Boy Niang def ay preuve am doog a ñëwaat. waaw ragal naa nag dañ cay dellu. da ngeen cay delu ragal naa dañuy dem bàyyi ko mu def ay preuve daal di ñëw. ragal naa loolu amee defet mu am defet ma yaakaar combat fi mu toll nii ñor na. déedéet comme Balla Gaye li mu def ci làmb bala Gaye bu demee bëre am benn defet ñu ne defetam bii moo tax léegi na wàccaat ba ci euh, walax njaan yi bëree ak ñoom loolu man ànduma ci. ñoo ñooy walax njaan xale yi. booy ñaa walax njaan ñaa xale la de. booy ñaa xale la de. booy ñaa xale la. d'accord Balla Gaye bi bëreeg Bombardier nii Balla Gaye dafa prouvé yow Balla Gaye prouvé na wala prouvé wul ma delloo question. non na. liggéey na ci moromam wala liggéey loolu kenn waxatu ko liggéey na ci ay magam wala liggéeyut. kenn waxatu liggéey na ci xale yi wala liggéeyut. kon nag loolu mooy prouvé. prouvé da ngay daan mag ñi daan say morom daan xale yi daal di ñëw taxaw suñ la joxe paa buñ la joxe paa bu gën a màgget si làmb ji sax bëreel ak moom. ndax dama déggoon kii di déggool mu ne Balla Gaye moo gën a neex a a neex daan te bu booy ñang jàkkaarloog Balla Gaye bu combat matin cinq minutes moom yàlla ko yàlla def leneen lu dul noonu. yàlla na ko yàlla rey dëggal sama mbokku taalibe la ñoo bokk Cheikh na Cheikh Saad bu ba ci Boy Niang ñun ñëpp ñoo bokk taalibe ñoo ñoo bokk Cheikh na Cheikh Saad bu mais Balla Gaye neex daan yow laaj delloo naa la question bi. man kay du man kay naa pour wax ci dama laa laaj ndax Balla Gaye. xam ne yow jege nga Balla Gaye moo tax ma lay laaj. loolu léegi nag am na xam nga jant bi bu tegoo nga ne lii du jant. Hmm. dan naan du jant rek daal di ànd yow ci du jant. Balla Gaye neex a daan ci làmb ji waaw d'accord waaye yow xam nga question boobu moom bu ci Sénégalais yi di débat danoo ñàkk amul programme quoi loolu bu ñu ciy débat danoo amul programme Balla Gaye na neex daan ci làmb xanaa mën mii sax ba futtee ko gën a neex ci làmb ji loolu xam nga bu doon débat la dama ci sori quoi mais loolu moom. xanaa sunu sunu Balla Gaye Balla sunu papa la nga du wax ñuy dindi lim wax dan naan ko waaw rek tax waaw du fees teen du booy lex du fees ndaar waaw la ñuy wax rek Balla bu neexoon a daal du jël roi bu neexoon a daan xale bu ndaw du egg ci fii mu egg ci làmb ji bu neexoon a daan Yékini tër na ko bu yàgg. kon fi mu toll daal jàpp nga ne booy Niang dafay dem waajiwaat ba ci kanam. Boy Niang mën na waaj mën na jaar yoonam bi bëre Balla Gaye jaar yoonam di bëre ba làmb waat leen mais instant yi nii nii nii ah, ragal naa waxe Aziz ji mooy am de. gëwma ñu gaaw a bëre de wax naa ko Boy Niang ndar Boy Niang noon ma ne ko yaag Balla doo leen gaaw a bëre. mais est ce que nekkul da ngeen di daw Boy Niang parce que défaite bi ngeen jógee est ce que nekkul da ngeen di bëgg a daw Boy Niang dem bëriwaat ak Eumeu Sène bëriwaat ak ay keneen ak keneen seen lan dawuñu Boy Niang de dawul Boy Niang Boy Niang ak Balla sax gis nga seen làmb man bu ma sañoon sénégalais yi takk ko ba mu jekk teg nee ndax lan damaa xam ni ba ma ko dalee wax ba léegi xaw naa deful biir est ce que deful trois ans trois ans saa yu ma dëppee caméra man leen bu même bu nuy bëree du gaaw du gaaw de Boy Niang wax naa ko ko ndar bin dajee dëju seexal xalifa te bi Cheikh Al Khalifa gaañoo léegi boobu corona amagul Sénégal te korona bi léegi mu def sax naa deux ans. na deux te ba ma ko koy wax corona amagul. nee naa ko boo ñaan doo gaaw a bëre mbër mi. mais fan nga teg fan nga teg ne boo ñëw du gaaw a bëre Balla Gaye. du a bëre de. du a bëre saa yu ma dëppee caméra nag max wax leen ko du nu gaaw a bëre de. <laughs> xam naa nag dinañ man ma ne nu bëre. waaye du gaaw. Hmm. te duñ ca am la leen gënal. dama ragal ñu dem ba waar bi war a soufflé ñun nii la làmb jooju wala làmb jooju échec bañ a am dañ ciy def seen xaalis rek mais ragal naa duñ bëree de. mais li nga wax ni li nga wax ni na de. chaque jour ma wax leen ko ñetti ati yàlla. man leen même bu ñuy bëree du gaaw duñu gaaw bëree. Boy Niang mooy daw lamb ji wala Balla daw lamb ji daw du booy Niang xam nga Boy Niang ku ko fay mu bëre Balla Gaye bu ne xaalis baa ngi nii bu weex tàll mu bëre waaye dañ dul gaaw bëre dinaa leen yeewi nag bu ñu demaatee yeneen trois ans suñu yàlla rey ci kàttan suñu borom naa leen yeewi euh. waaw duñ gaaw bëre di nga yeewi nit ñi wax li ngay wax fan nga ko teg. waaw ah, ah, dinaa leen yeewi li may wax fan la ko même bu ñuy bëree dey bëre ba doo leen ci am lu leen neex rek xam naa dinañ ko tëgg ba pere ba ni suba la làmb ji échec am. <laughs> mais mas li ngay wax nii gaaw a bëre de gaaw a bëre de. ñetti at ak nii wax loolu. te fas yéene goo bàyyi wax ji ngay wax. duñ gaaw a bëre de. wala bu ñu defee ban bëreet amaana est-ce que danañ ci am. mais démb tamit ci ay wax maa ngi dégg waa Mbour nee nañ comme que Balla Gaye nangul bëre te daw naa daw ba bëgg a dee te duma nañ ko est-ce que duñu woo Sa Thiès may ko sens. kan ci bombardé Sa Thiès. ñu déggee Ba ñu déggee bombardé kay laa dégg ñu wax loolu. ah nan dem bëre nan dem bëre Sa Thiès a ngi noonu ñu ngi noonu Sa Thiès te buñ ko dégg ak bombardé duma bañ dama naan ko jël ko hmm. waaw bu newoon Sa Thiès bombardé dama naan ko na ko jël bëre bu ko bombardé soxlaa na Sa Thiès dem bëre xam nga li gën a neex mooy mag soxla xale. waaw mhm. ah, loolay làmb ji neex. tey Balla Gaye bu xiifoon Boy Niang lool lool lool làmb ji tey jii dañuy ñëw noonu def leen tey seen première signature ngay dégg tey tey dimanche seen première signature kon tey lañ koy def. Ah, làmb laa làmb làmb làmb la ñuy waxtaane de waaye xaw ma làmb de waaye for naa tuuti Balla Gaye Boy Niang mhm. ku guddul fan lool doo fekke seen làmb yal na nu yàlla mooy gudd fan nag. mais revanche ak bi nga xamante ni moo dox ci digg Eumeu Sène ak Balla Gaye ndax dem Eumeu Sène démb bi mu dugg see yéen waa Guédiawaye lu ne wax ngeen ko ko lu ne yàq ngeen ko ko mais revanche boobu naka ngeen ko na waajal. waaw Balla Gaye Eumeu Sène danoo bëre woon ñaari yoon moom mu daan mu daan Balla Gaye ñaari yoon d'accord waaye tey boo Eumeu Sène soxlaa ah dañ ko koy jox bu soxlaa laax Balla Gaye Balla laa daan rek saa ay milliards la Balla Gaye laa daan. say Balla Gaye laa daan i imaginer lool ay yeneen mbër laa daan garaawul mais Balla gay laa daan waaw Balla gay laa daan saa waay kooku ay kooku ay million la Balla Gaye mbër yi newoon ci saako yëpp bi ko daanee danoo génn. mais seen diggante ak Eumeu Sène xalaat ngeen bu ngeen ko jëlaatee ah. la leen ci daloon du leen ci dalaat. ndax saa ko jëlee yaakaar ne boobu lay gënoon nooy boobu ngeen ci gën a am mbetteel. waaw déggoo li ma la Balla laa daan Balla Gaye laa daan Balla Gaye laa daan amul amul amul tànk ginnaaw yaawu jàlleg bu daanoon Balla gay tey jii si donkaasi gi day ne Balla Gaye ko daan yëg moo tax Balla Gaye booy bëreeg moom bu yeboo nga miraas sa bopp def ci lépp fexe koo daan ndax Balla Gaye laa daan ay milliards la ay milliards la yaay publicité yaay xew yow la ñuy waxtaane wala bay Balla gay daan ko taxul mu fay de waaw ñaata defet la am te fayagul deretu mbër jaay daw ci moom doomi mbër na nduru mbër ñoo xam ne mbëray baayam yal na ko yàlla defal jàmm lii yal na ko jik waaye it Bombardier lee yal na ko jik Sénégal it lii yàlla na leen jig waaye Balla Gaye Boy Niang daal bu ma sañoon ñu gas ko daal koy takk suul ko ma ban kan loolu faaw ñëw ñuy leeral ci man. non loolu xa après xam nga def nañ ci wax naa ko ñetti at. suñu yàlla mayee gudd fan ban waxaat ci ban demaat ñetti at. dinaa leen tojal yax bi. kontaan naa ci yow. defaatee ñetti at ci kattanu suñu borom yàlla bàyyi ñu fi ñu mën tey wax dinaa leen wax. lu tax ñu def ko benn at rek. non bàyyi ñu dewaat ñetti at rek ndax xam naa ni ñetti at maa ngi taxaw saa ma dëppee caméra man leen Balla Gaye booy Niang seen lamb du gaaw lamb jooju ndéem dinañ ko bëre sax ndéem daa bëre sax buñ ko taxawalee sax amaana buñ defee semaine lamb ja yàqu. nañ ko dagg foofu ba beneen dagg na leen yàlla defal jàmm site bi. wasaare lamb wasaare doon na wasaare laata wasaare di doon wasaare ngi wasaare was doon was laata was di doon was wasaare kere nañ ko defar ci was defar ci whatsapp muy wasaareel gars yi lu waay di bëgg a dégg ak lu waay di bëgg a xam ak luy leer tey fës na seeti wasaare lamb. wasaare lamb wasaare naka ci àddina jël leen seen wàll.